dégloo dégloo déglooti bismillahi samin alim sunu kër FM min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokki auditeur sunu rajo sunu kër FM di MTRK États-Unis d'Amérique Californie ñu ngi leen di nuyu di leen wax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. li di nuyu goor ak jigen mag ak ndaw mbooleem sunu auditeur auditrice yi nga xamni ni nañu and ak noonu semaine bu nek ci seen émission bi nga xamni bi mo tudd gindi gindi nak boko déggé nit dina ku réer dina ci gindiko wala ku gëlëm gindiko ci kon gindi gindi gindi ku gëlëm moko taxa job wala gindi ku réer kon yalla nu yalla defal deg ak top ba lepp lu ñu fi wax mu meuna gindi ay doomu adama yo xamni dañu nekkun nekkoon ci ngëlëmte wala ñu nekk ci ak reer yalla nañ ko ci yalla defal di nuyu personnel rajo bi ñoom ñëpp tàmbale ko ci kilifa gi ba ci suuf góor jigéen mag ndaw techniciens yi journalistes yi ak animateur ak animatrices yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di fas yéene ñëwaat ak yéen rek ci thème boo xam ne bi moom itam xam ngeen ni dafa bokk ci thème yi ci ci ci jikko yi nga xam ni dafa ñaaw muy jikko yu ñaaw yi ndax. booy xool àddina bi léegi jikko yi gën a bon yi gën a bon gën a yées yàlla gën koo bañ dafa dem ba mel ni léegi doomu aadama yi dañ koo daganal seen daganalu bopp <clears throat> ndax boo xoolee lu mel ni fen nga xam ni ci lañu war a ñëw tey nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi jullit du fen kon boo di boo boo boo doonee fenkat rek génn nga ci jullit yi bokkatoo ci yoonant bi ne na bokkoo ci man fen te léegi nit ñi dañ ko jël laxasoo ko boole ko ci seen dunduk àddina boole ko ci seen utiinu alal boole ko ci seen doxaleen ak seen digganteeg ñi ñu amal relation muy fen bokk ci jikko yi gën yi yéesu muy yi ma la wax jikko yu ñaaw yi nga xam ne bi nit ñi dañoo dem ba léegi daganalal ko seen bopp fen ci la bokk jiw ci la bokk waaye iñaane nit sa moroomum jaam nga iñaane ko lu ko yàlla defal iñaan nga jëm ba jural la mbañeel sa digg ak moom te ku wéetoo nag yow ak xulaay taala laaj la kii lu mu la def ba nga iñaane ko lu mu la def ba nga bañ ko doo wax dara lu dul rek moom daf maa neexul ñàkkulaa neex moom na ko yàlla def moo la neexul nga xam ne iñaan dafa bokk ci ñàkk nangu dogalu sunu borom moo muy lekk jëf ni sawara di lekke wutin jëw yàlla yamale ko lekk sa mbokk mu sa mbokk mu faatu nga tiim ko di ko lekk alxuraan indi na ko yonent bi ni jullit du fen man ngaa yoo jikko jikko bu ne doon doon jullit bu kàccoor wala jullit bu saay-saay wala jullit bu sàggan waaye fen moom yonent bi dani jullit du fen te léegi dafa mel ni nit ñi ko dañ koo daganal seen daganaluk bopp wax te fenoo ci fenoo biir wax ja yombul diggaaleeg nit te fenoo ci yombul muy loo xam ne bii mbir mu garaaw a garaaw garaaw la fen dafa yomb léegi lool nit ñi jàpp ndalal ko yombal ko lool tubarkal la nit dina fen ngir di ko ñoddee am koom njariñ nga xam ni kii dafa am loo bëgg ci moom nga di ko fen pour jot loola yomb na lool ci jamono bii nu nekk waaye nit dina fen tam ndax ragal lor nit dina fen ndax ragal ragal lor te lor ak njëriñ newul ci loxo nit ñi ngay yaakaar séentu njariñ ci ñoom wala mu ne ci lor nek ci loxo nit ñi ngay ragal ñu lor la loro njariñ ci loxo yàlla rekk rekk rek la nekk kon bëgg njëriñ bu mu la tax a fen ragal lor bu mu la tax a fen ndax ki ngay ragal mu lor la ba nga di ko fen wala nga bëggal ko njëriñ ba tax nga di ko fen ñaar ñaar yooyu newul ci loxo nit ci loxo yàlla la nekk Sëñ tubaa wax na ko ak durru wa nafxu min arrahmaani laysa min albidaani wa sudaani lor ak njëriñ nekkul ci loxo ku weex nekkul ci loxo ku ñuul kon bëgg njëriñ ci nit mbaa ragal lor ci nit bu mu la tax a fen nit dina doon fenkat tam ci bëgg ñu ni moo xam lépp moom de xanaa dara ump ko léppo de moo ko xam foo déggee ñu wax ko nit rek xamal ni dëgg dëgg dëgg dëgg xamal ni foo deg ñu wax ko nit rek xamal ni mom fen kat la kat la ko xamni bi beggo dara umpu la bëgg xam lepp te loolu di cërub yalla ala kul halid momitam, du jikko bu baax dina tax nit nga doon kat loolu lu mata a xel la bëgg ñu ni mom de lu mu wax deug la rek lu mu wax mom deug la mom day lepp xana moko xam loolu képp ku ko jikkoo nanga ko bàyyi ndax da lay jural adresse fenkat bëgg ñu ni moo xam lépp foo toog rek bëgg ñu ni moo xam lépp fen dëgga nit dina koy habitué te dara warulu ko li ngay ki ngay fen jëm ci moom danga ko bañ rek bañ nit bañ nit ki dootoo ko dootoo ko xalaat dootoo ko dootoo ko waxal lu baax di sos ay wax yu ñaaw jëme ci moom di ko fenal loo ko xamal di ko wax loo ko xamalul sax di ko sos loolu tam dina tax nit doon fenkat te nit dina doon fenkat ba ñu bind la ca ca kaw asamaan boole la ci ñi nga xam ni bii fenkat yi la fenkat yi ñu boole la ca bind la foofe fenkat di nga dem ba boo waxatee dëgg sax kenn dutu ko bind dëgg dañ koy bind fen loolu dara jaru ko ci àddina wala tam ndax bëgg loo loo wax rek ñu ni dëgg la bëgg foo toll loo wax ñu ni dëgg la ngay giñ di waat te lépp di ay kàcc ndax rekk bëgg ñu ni rek moo xam lépp walla lu mu wax rek moom lu mu wax dëgg la lu mu wax dëgg la lu mu wax dëgg la loolu am na ñoo xam ne bii noonu lañu ñu mel wala nettali mbir ci nu mu demewul dina tax nga doon fenkat mbir mu ni til rek nga daal di jóg nangam yëg ngeen ko nangam la deme nii la deme nii la deme nii la deme donte loo fekkee la tax boo koy nettali di nga ko doo ko nettalee na mu demee waaye danga koy nettalee na na na mu la soobe na mu la soobe am na nit ñoo xam ne bii noonu la ñu mel te loolu dëgg-dëgg dara jaru ko du jikko bu bax di fen ndax bëgg daraja nit dina koy def di fen ngir yëkkati boppam di fen ngir bëgg ñu ñu am fuñu la tek di fen ndax bëgg ñu jox la ak ciir loolu nit dina ko def te loolu tam xam nga ni do lu baax di fen ndax bëgg daraja bëgg ñu yëkkati la rek tax ngay te boo dee borom daraja di fen fen mooy borom dëgg dëgg bi ci yées mooy borom daraja ju fen parce que loolu day tasum réew loolu moom na ko ñëpp xam même sa njaboot gi nga xam ne bii danga leen a yaa leen jur wala nga yilif leen nekk ak ñoom ci kër gi na nga moytu doon di doon fenkat ci ñoom na nga moytu tam di leen jàngal fen ndax tey jii boo toogoon sa doom nga ni ko nangam demal def nangam wala xajal ma damay damay noppalu demal bu ma yeewoo danaa la jox nangam wala kaay dem def lee boo ñëwee ma jox la nangam bu defee loola te la nga wax defoo ko rek bind bindal nañ la fen bindal nañ la fen bu ko defee loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax a baax bu ko defee tam yow mi nga xam ne bii yaa ko jur d'abord yaa ngi doon fenkat mais yaa ngi ko ci jàngalaale fen wane ñu ko fen garaawul wax loo dul def du problème war nga war nga kenn ku ci ne war nga koo mën def ci boole ci sag dund di wax loo dul def wax loo narul te loolu dara jaru ko nga di ko yare sa njaboot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa dem ci kër benn saxaaba ci saxaabaam yi toog këram dugg moom ci néeg bi war a waxtaan xale bi ñëw bëgg a dugg ci biir néeg bi yaay ji woo ko kaay kaay kaay xale bi bëgg a dëgër bopp pour dugg mu ne ko kaay ma boo kaay ba jox la nangam yonent bi dégg ko ne ko. ndax bu ñëwee di ko ko jox mu ne ko dee dama bañ rek mu dugg di leen empêché seen waxtaan yooyu mu ne ko dee bu boo ko wooyee ni ko kaay ma jox la nangam te mu ñëw te joxoo ko ko rek loolu fen la loolu dañ la koy fen bu ko defee loolu doon lu matam moytu sa doom bul ko ni dinaa la defal nangam te doo ko def bu mu la teg dara tam loo xam ne wóor na leen doo ko def nga di ko ko nangul won ko ni ko di dinaa ko def waaye ba ma ñëw bu ma ñëwee def ko wala bu ma ñëwee nangam loolu nag nañ koy moytu ndax loolu tàmmal xale bi la yare ko ci nii wax loo dul def ak wax loo narul du problème dañ ko gis ci jigéen ñi nit ñëw di les di la di war a xam ne léegi nit ñëw seet si la da ngaa yore ñuy borob jàmbur wala leneen wala koo xam ne kii dalaa ko ne dina fi ñëw te bëggoo mu bëggoo mu ñëw sa kër wala bëggoo mu fekk la fi nga nga nga yu dugg sa biir ni woo sa doom bu ñëwee ku ma fi ku ma fi laaj ne ko nekkuma fi. xale bi def na benn xale def na ko fii ndaw si ñëw salaamaaleykum maaleykum salaam ana sayaay ana mu ne ko nee na nekku fi mu ne ko nee na nekku fi demal ne xale bi ñëw ñu ko yaay kaay wuyu mu ne ko lu lu ma la ko mas a mu ne ko wax naa ko ko nee na ko ko mu ne ma demal wool ma ko ndaw si génn ndaw mu ne ko mu ne ko man ko dama ne an sa ko ne an mu ne man nee na nekku fi ma xam ne kon yaa ngi fi loolu dafa garaaw. jàngal sa doom wax lu dul dëgg la jàngal sa sa doom fen la jàngal sa doom wax lu la neex waxal jàngal sa doom eh, wax lu nekkul lu nekkul loolu dara jaru njaboot gi ñu leen di bàyyi xel bari na mag ñoo xam ne ñii tey lu ñu wax rax ca fen wala fen kër piir lañu wala lu ñu wax sax dëgg far te ñu ngi ko tàmmee ca seenu ndaw wala ñu tàmme ko ci milier ya ñu doon fréquenté di jaxasoo ñoom te ñooñu dooni kat nga dem bañu marche le courant bobu wàll la ko fay am fay am parce que ki nga bañ mu wàll la ni mu mel bul ànd ak moom wax li leen suba tàyyi ni leen ndox dafa sedd nga man ko sango man ko naan waye boko ko ci marmel bi teg ko ci gaz bi légui juroomi minute rek boko téggé fekk sawaro yu wàllu ko jikko ba doto ko mëna laal kon takko ga nga len takkale boole leen ñu ànd ca kaw gaas ma moo tax mu daal di ko sawara wi daal di koy jox jikkoom wàllu ko jikkoom mu daal di tàmbalee lakke comme ngi sawara yi lakke kon koo bañ mu jox la jikkoom ku la jikkoom neexul bul ànd ak moom bul ko jox sa doom nga bañ muy ki nga xam ci moom jikko yu ñaaw bul ko def ab àndandoo bul ko fréquenté bul ko may ci sa bopp tam mu dee la fréquenté di ñëw ci sa njaboot parce que gis nga ko jikkoo yu baaxul te feegi mi ngi fii ñëw takkook njaboot gi leg leg mu fekk la fi leg leg du la fi fekk du ñàkk moos mu wàll leen jikkoom yu ñaaw yooyu bu ko defee loolu lu ñu mat lu mat a bàyyi xel la kon fen yonent bi wax na ci benn baat boo xam ne bii rek doy na sëkk yow mi ni julit nga nga nga nga bàyyi ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit laaj na ko ndax julit dina naan sàngara waa am na yu sàggan yu naan sàngara ndax jullit dina njaaloo am na jullit yu yu yu sàggan yu kàccoor yu koy def am na jullit yuy sàcc te teewul ñu tudd jullit mais yonent bi bu ñu ko nee ndax jullit fen dañuy jullit moom du fen jullit du fen waaw bi benn waay ñëwee ci moom ni ko damay naan damay tux damay njaaloo damay def lépp dama dama bëgg daal nga digal ma waaye yooyu may def yëpp nag mënuma ko cee mënuma ko bokk bàyyi benn rek laa bëgg nga digal ma ko ci boo xam ne bi moom laay moom nga ma ko moom moom laay bàyyi mu ne ko bàyyil fen loo mën a def ak nu mu mën a demee rek bul fen waa ji bàyyi fen goo ko ko bàyyi loo yóbboon yi ci def yëpp ndax dafa bëgg di fréquenter si yonent bi di toog ak moom ak di seet di ko seet te bu demee tey njaaloo ji bu ñëwee mu ne ko mbaa njaaloowul tey bu ko nee bu ko nee njaaloo naa mu yedd ko mbaa yoon dal ci kawam te bu ko nee njaaloo ma fen te moom wax na yonent bi ne ko bàyyi loolu nga ma tere bàyyi naa ko bëggula dem di naan sàngara gis yonent bi mu ne ko ba bàyyi nga naan sàngara mu naan ko bàyyi bàyyi bàyyiwu bàyyi naa ko te bàyyiwu ko bu boobaa kon mu fen te du ko mën a naan ko maa ngi naan ci yooyu la topp ba bàyyi fen nga bàyyiloo ko yu ñaaw yëpp bu ko defee fen dañoo wax ni da nga koy da ngay fen fen yu génn ci sa gémmiñ mel ni am picc naaw bëtt juróom-ñaari asamaan yi dem ba aras muy biiw comme yemb yëngal aras malayka yëpp jóg lii lu ma doon lu xew mu ne man la fen diw doomu diw ak diw ca suuf dëkk sàngam moo ma fen moolu leen ko te rëbb ko te bind bàkkaar bi mbaa duma dal ñu def loola mu soog a dal kon fen lu garaaw la booy wax ak jigéen di bëgganteek moom bul ko fen booy wax ak sab xarit na xam ci yow dëggu jigéen bi nga xas takk ba pare bul ko fen bul ko wax loo narul bul ko wax lu amul yow mi jigéen sa jëkkër bul ko fen bul ko nëbbu bul ko jéem a réer bul ko wax lu nekkul ci bul ko wax loo narul sa xarit bul koy fen na xam ci yow dëggu ndax yàlla moo soxla nu dëggu teg sunu tànk ci dëgg di ànd ak ñu dëggu ñi yàlla digal nañu ko yaa ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a saadiqin yéen ñi ni gëm ngeen ma ni ay jullit ngeen gëm ngeen ma gëm sama yonent gëm sama alxuraan ji gëm bis biñ ci xam ne dina leen dekkal réglé leen yéen ñi wax loolu ni gëm ngeen loolu na ngeen di ragal yàlla fu ngeen tollu tey jéem a def ñu dëgguña dul seen ñu doon seeni àndandoo loolu alxuraan indi na ko kon ñu bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax jullit day doon nit ku dëggu di wax dëgg di jëf dëgg li mu nar mu di ko wax lu mu narul du ko wax lu li mu def muy buy wax mu wax li mu def buy wax itam mu wax li mu nar te bàyyi nar bàyyi nar bàyyi fen bàyyi wax lu dul dëgg yàlla wax na ko wax na ci alxuraan ànd leen ak ñu dëgguñu ragal leen ma te ànd ak ñu dëgguñu ndegam seen gëm gi dëgg la yonent bi wax na ni kuy fen bokkoo ci man kuy fen doo jullit jullit du fen yonent bi wax na loolu ñaar yooyu rek doy na pour nit xame ci ni lu ñu war a bàyyi la yàlla wax ni bu leen ko bu leen ko def na ngeen dëggu tey ànd ñu dëggu ña yonent bi ne ku koy def bokkoo ci man te jullit du ko def ku koy def ku ne doo jullit ñaar yooyu rek dafa doy ci yow mi ni jullit nga nga nga xamee ci jànge ci jéem cee soppi ko jéem cee tuub say passé passé jéggulu li nga weesu ak li nga doon wax lu dul dëgg te mu te mu te mu weesu nga fas yéene tuub li ci sa kanam nga rafetal ko fas yéene doon ku dëggu di ci wax dëgg di ànd ak ñu dëgguña di def dëgg di wax dëgg li des ci sa kanam loolu boo ko defee yàlla bàkkaar lu mu rëy rëy rëy boo ko boo ko jégaloo yàlla jéggal la ko aman tadaarakal la si xat faata mina laqaa wa amaral aw xaata بتوبة النصوح والإقبال إلى الإله فاس بالكمال سن تباخ نينا كيب كو خامني ياغي reccu di ميتيك lu ساي pase passé yu نياو ييغا دون ديم dem yaangi reccu di ko tuub tuub gu sel te yàlla tax fas yéene li ci sa kanam nga rafetal ko ci teg sa tànk ci dëgg ko ci ko ci jikko yi nga mom la yalla geureum képp koo xam ni def nga loolu xamal ni yàlla jéggal na la te tam am nga texe gu gu gu gu mat faasa bil kamaali texe gu mat am nga ko kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax bu ko defee ñu xool ni li yàlla bañ ku ko ku ni mel ba di ko wax ci alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi mu yónni ci nun wax ni ku koy def doo jullit bokkoo ci man sëñ Tuubaa wax ni tuub leen seen passé passé yi te jema rafetal li ci seen kanam te xamne de ci mbettel lay ñew al mawtu yaati baqtatan de ci mbettel lay ñew te di fofu mané ne ci adina bi ya nga gis ñuy ñuy roñ dem di suli, nga dem di len jaar ji wala nga bañ len jaar ji ya nga gis ñuy de ya nga koy ci téléphone yi diw na adina diw nangam ngay rëcc ha ah, kañ lu ko daloon xanga dafa feebar mu febar, mu baña a waxto ma jot mu de yow nga feebar nga baña a bu sa waxtu jotté da ngay de te boo dee nag sa jëf ak sa jikko ak sa melokaan la nga mel la nga doon dund rek loolu mooy ànd ak yow ci sa biir bàmmeel ñu gas ba mu xóot sang ba nga set laxas perkaal jullee dugal ci biir suul wàcce la fa dem añi wala dem yi ku mu mën a doon di nga xëy yendu ji foofa wala nga gontu fanaani fa ñëpp dem bala fa nag mu des la say malaayika rek ya nga xam ne bii ñoo yor say dossier nga teer ci kanam sunu borom yàlla war laa régler te sama gaay yi bàmmeel xat na lool te lëndëm lool te te lool te ñàng lool te tiitlu lool kuy kuy dund te xam ne ala kulli xaalin mënu caa mucc fa ngay mujj war nga koo bàyyi xel war nga koo bàyyi xel di ko xalaat xam ne xamoo kañ lay ñëw xamoo nu muy ñëwee xamoo fu muy ñëwee xamoo buy ñëw ci ban façon lay dikke te dina dikk mënoo koo daw fi nga waaxu jëm fa defe fa ngay rawe foofee lay jóge waaxu tase seeg yow kon ñu bàyyi loolu xel xam ne sunu borom dañoo indi fii pour ñu jaamu ko dañoo indi fii pour ñu rafetal suñu jikko danoo indi fii pour ñu jub danoo indi fii pour ñu teg suñu tànk ci siraatal mustaqim danoo indi fii pour ñu roy saydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li ya'buduni loolu indiwuma indiwuma fi nit ak ginne binduma leen lu ñu jaamuma loolu la alxuraan wax sëñ Tuubaa waxoon na ko ci njaareem mag ñi benn bis mu xëyee ci biir kër gi génn waaxu dugg daare kaamil ñëpp àgg suuf boof mu ne asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam wa rahmatullah mu ne tey de ñëw naa ci daara ji te may jàngale ñëpp ni xeram mu ne jàngale bi nag du weesu ñaari wamaa yi yàlla wax ci alxuraan ñëpp ni xeram mu ne wamaa xalaqtul jinna wal insa ilaa liyax bu doo nii ako wa ma min daabbatin fil ardi illaa alaa bii mooy yàlla nee na bin maa leen bindu ma nit ak dul ñu jaamu kooku gàll naa ko ci seenu loos bii mooy wa ma min daabbatin fil ardi illaa alaa man yàlla képp ku ma bind sa ration maa ko yor boobu maa ko gàddul Sëñ kon nag bu ñu bi ñu yàlla gàddul di ngër-ngëreeg di ca sonn ba bi mu nu bi mu nu dañ bu ko sàggane ba ndax jox importance bi mu nu gàddul bee moom ala kulli xaalin bi mu la gàddul yor sa ration bi ngay feeg yaa ngi dund mu di la ko jox nit du dee mukk fekk dese nga fi benn benn benn benn un franc ci sa wërsëg bu bu des ngay dee di ko fi ba amul lépp loo fi war a jë lu fi war a dugg sa loxo bala ngaa dee dina dugg sa loxo ba mat waaye xamu nag ban dërëm mooy ñëw doon mujj doon dërëm bi ngay mujj téye xamoo ko kon rafetalal sëñ tubaa neena bu len top bi len yalla gal gàddul ba sagane bi mu len gal, bi mu nu gal moy bi nu meun ci gine lu dul ñu jaamu bi mu nu gàddul moy kuma bind ma yor sa ration kon bi ko mo nu gàddul boba kay sëñ Saliou Mbacke waxon nako ne nit ku nek ñaari bir nga am sa bir sa biru bop bi la yalla jox ak sa bir bamel sa biru bop bi nak Yalla la warlu li nga ciy def mom fek yaangi dund waye neena na bir bammel mom lo fa deful do ko fa fek kon nañu bayyi fen bayyi jikko yu ñaawi tek teg suñu tànk ci siratul mustaqiima tuub suñuy passé passé jéggulu ko yalla toroxlu damal ko suñu daraaje xamal ni momrek rek moy bour ken du bour kudul mom momata ragal momata jaamu mom mérito ñu jaamu ko ñu teg ñu ragal ko te ragal ko mooy li mu la tere lépp nga won ko ginnaaw li mu la digal nga teg ci sa tànk ne loolu dong moo di ak ragal yàlla te yàlla lépp lu ko nit defal ci àddina ragal koo ko ci gënal te loolu mooy ragal ko ne ci li mu la digal bàyyi li mu la tere boo ko dee xool bi ci biir mooy baat bi mu daan wax démb ak bërki démb mooy nekk ci li nga war a nekk kon fa tabarakallahu loolu mooy li nga xam ne bii tey jii moom la ñu leen indiloon di sant nag sunu auditeurs yeeg sunu auditrices yi nga xam ni seenu déglu ñu ngi ko jooyal jëmale ko ci sunu rajo sunu kër FM rawanteel nag ñi nga xam ne bi dañuy bàyyi xel suñu émission bi nga xam ne bi mooy gindi tey am mercredi bu nekk fa tabarakallahu ñu di ci ñu di ko déglu ñii di ci jànge ñii di ci bége ñii di ci gindikoo loolu lépp fa tabarakallahu yal na ko yàlla def muy ay njëriñ yu ñu jëriñoo ba mën cee xamee fu ñu teg sunu tànk ba ëllëg mu mën noo jural yërmande njëggalu sunu borom mën noo jural terangay àddina bi ju àllaaxira yàlla nañu ko ci yàlla defal bi xormati sayidil wujud wa alimu shuhud sayidina wa mawlana muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam barke Serigne Touba ki nekkoon ci micro bi di leen présenté émission bi mooy seen xarit seen soppe seen mbokkum jullit Omar Diallo Diop wa masalik àlalahi bi asis wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu woo ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew baax